ni mu li mu nekk rek ci sëriñ bi doyal na julit yëpp doyal na mburit yëpp doyal na taalibe yëpp taxawaayam ci liggéeyam bi mu ànd ak sëriñ bi di ko liggéey muy ku baax ku yàgg baax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 jox leen teraanga ju rëy waaye saxoo leen lool xamal ni itam sopp sëriñ son bi moom ku ko def moom nga ko defal ndax sopp sëriñ son bi moom moo ko gën a def yëpp ay xale yoo xamante ni mënuñu dara